ñoom ñaar li ñu doon xas la sox loolu na ndax fii la tey lay leere bëre xeex ku yàlla may ndam ñu xam ne kooku la yàlla mayndam dafa am ñaari mbër lu leen di jëwee mooy dañoo mën a bëre dañoo mën a xeex ndax tey mën nañ ko wane fii ci combat bi. bu baax di ko gis ku ci soor combat bi nga jugee mën nga amaal mbetel combat bi nga jugee da nga koy sànni ko fële xam ni combat wu tey bii moo am soxla ci man ndax combat bi nga daanu bul sonn. mënoo too fexe ba mu ñëwaat. wàcc na ñoom ñaar di di di di di léwtoo ñoom. li muy def du dëgg ci moom. daa bëgg a wor. voilà mais Yankaw mi koy déglu rek di ko xool. daa bëgg mu jóg mu jàpp ko. daa bëgg mu jóg mu jàpp ko. jàpp ko parce que moo ko moo ko gën a sëf poids tuuti. Yankaw cokkaas na ndeysaan. waaw loolu la war a def pour freiner ko waaw léegi nag Bébé Gouy Gui li ko jig mooy déplacé wu dox latéral sa waay gën a oyof mu ñëw ci kawam mais tant mu ngi taxaw mënu koo jëli. mun ne ko sànni ko roose mu daal nag mais munu ko jëlee ba jàpp ko waaw. ñaari mbër yaa ngi noonu El Hadj Ndeysaan Yankaw Junior écurie Doudou Bakar Sarr jàppante baaraam ñoom ñaar bébé guy gi écurie Mor Fadam cokkaas na moom bébé guy gi Ndeysaan. waaw bébé guy gi lii waru ko ndax kee moo ko sut ay cër tuuti li ko war mooy déplacé wu waaye watta dëggal waxam ndax ndax ndax ndax ndax gis nañu Yankaw sànne na ñaari yoon yoo xamante ni daanaka bu gis nga. na boobu dal na waaw dal léegi nag bu ko dolliwaatee tey ak tànk bi mu teg nii tey mën na ko faa fekk maa day taale léegi nag li ko jëg mooy déplacé wu dafa war a déplacé wu war ta diggal boo xam ne man mii tey jii damay rayante li yankaaw def loolu la bébé gi ko waroon def hélas ba dóor mu daan du ci am xeeñ na de ah ah ah lamb la lamb joo mënta miimal dara la lamb joo mënta miimal dara la ndax ñoom ñaar dañoo jóge ci defet waaw ah. te ku ci nekk garde normal nga teg am muy muy tànk góos waaw garde normal nga def mooy yoon ña ngay xeex ñoom ñaar ma gis nga li ma lay wax. waa kaw te du fa am waaw waaw léegi nag léegi nag bëri mu naam parce que loo xeex xeex tuuti te jàppoo di nga jéem a jàpp parce que adversaire mënut a jàpp te yow jàppoo gis nga léegi avantage bi mooy gën a gaaw gën a yeewu comme comme bébé guy gi jàpp na. bébé guy gi am na ngem. waaw gis nga. waaw yaa ngi kaw way continuer yaa ngi kaw mi ngi continuer dóor yi. waaw mooy yoon mooy yoon pour mu bàyyi fi mu jàpp mooy yoon pour mu bàyyi fi mu jàpp mais bébé guy gi mi ngi jàpp rek. mi ngi jàpp te. di mën a bëre gaañu na am na lum nar dafa gaañu dafa gaañu dafa gaañu ok dafa gaañu dafa gaañu gaañu dóor yaa metti moom bébé guy jàpp bi moo lay wan ni li ma doon wax ci biir bëri bi tey li yankaa waroon def moom loolu la waroon def déplacé wu warta dëggal boppam di xeex jëmale bu kenn xamul du loolu moo ko jig ndaama warta sax ci fi mu sax ne day da day bagaara koo xamante ni moo ko bu doole wala moo ko sut ay cër boog di moins ndax gaañu gaañu mën na métti boo métti waay boo xamante ni a na bañ a ñëwaat waaw. lu ci ma lu ci man di am ñaari mbër yaa ngi noonu saan Yankaw Junior Bébé Gouy gi ma nga ca ardo ba ma ngay naani soow wala meew lay naani moom Bébé Gouy Gui lum ca mën a doon lu xonk la meew la wala soow lum ca mën a doon lu xonk la ndeysaan Bébé Gouy Gui la ak Yankaw Junior ñaari mbër yi xeex nañ ba kenn dem ca ardo ndeysaan ñaari mbeur yaa ngi noonu mbokk yi nekkon combat spécial bi lolu mo nekkon combat spécial bi ndeysaan yankaw yankaw écurie Doudou Bakar sar bebe guy gi écurie Mor Fadam ndaysan ñanga nonu ñom ñaar ñaari mbeur yaangi nonu, wa Ardo ña def seen liggey Ardo ma ngay def liggeyam Ardo ma ngay def li nga xamne mom modi liggeyam ndaysan mbokki ndeysaan Zarak Vision ñu ngi leen di bëggee ñoo ngi leen di kontaane mbokki di leen wax ngeen wéy di abonné ci Zarak Vision site bu mag bi bëgg naa leen nuyu leen ngeen xaar ñu ci kanam plateau spécial Franc ak Bombardier Youssou Ndour Baye Balla Talfa waaye ñaa bu ndaw ak Zarko loolu ci kanam la spécial plateau ndeysaan spécial cafka làmb mënul yomb ma seq kook elage bu écrit Njaga Saar ndeysaan bu géejawaay waaye tam sama ñaari xarit dañuy ñëw muy mbokk yi alpha ak diggante caam ndeysaan alpha ak caam loolu mun kenn mun leen a génne ci Zarak Vision si lañ bokk ñaari ndaanaan lañu Mouhamed Jox maa ngi lay maa ngi lay ziar Waly John maa lay nuyu Khadim Thiaw maa ngi lay ziar ndeysaan mbokk yi de leen bu ko defee ñuy lim seen tur maa ngi leen di bëgg wéy leen di abonné ci Zarak Vision ba léegi bébé guy gaa ngi ca arroba ndeysaan bébé guy gi mi ngi bëgg a yàgg ci arroba ma ngay bëgg yàgg ca arroba même bébé gi ma ngi fay bëgg a yàgg moom bébé gi ma ngay bëgg a yàgg ca ardo ba même bébé guy gi hélas bébé guy gi ba léegi ma nga ca ardo ba yàgg na. waaw moom laa la gaañu gaañu bee metti gaañu gaañu bee metti parce que dañ ko kor tëgg ko ay épercule yu bari muy résister di jéem a xool fu muy gën a jàpp bu baax waa ji di gën a dóor épercule yi pour muy gën a gaañu ndax saa bu gënee gaañu rek avantage am lay doon bu demee ci médecin mën na bañ a ñëwaat waaw. mi ngi noonu ndeysaan mais gars yi ñu ngi lay séntu après ci kanam ñu waxtaanee làmb Franc Bombardier ah, Talfa Youssou Ndour Boy Balla waaye tam combat bi nga xam ne jëm nañ ko muy le 4 février Zarko ak Niang bu Ndaw Niang bu leneen la doom day abu maa ngi lay ziar doom day taw feex waaw loolu date la ndax Niang Ndaw Zarko rek leneen la njaga doole dut saane leneen la ak le ak leneen lépp li ci topp caatu yoo fak euh, caatu yoo fak njaay ci waaw caatu yoo fak njaay ci nag caatu yaraax ak euh, xaw a taxaw tuuti quoi damay ragal ne est-ce que boobu dina am. caatu caatu caatu yoo fa njaay waaw est-ce dina am. ah mais loolu dafa war a am. foofu laa yamagum en attendant ba ma gis combat bi. mais lu waral nga ni dina am. ah ah foofu daal laa yamagum ba ma gis ne ba ma gis ba ma gis caatu yoo fa njaay ci di di léewtoo. da nga dégg lay jox ni ki kenn kenn dafa blessé wala mu déet. ndax làmb nag dafa doy war ah. foofu laa yamagum daal ba gis ko su ma gisee nag ma xam ne làmb jooju dina am bu soobee yàlla. booy jaxaaw garga numéro 2 nag. waaw loolu moom combat bu métti la. waaye booy jaxaaw na changé façon bërinam ndax galaa bi du ma ne du ci favori du ma ne du ci tokaar waaye ñi muy dajeel ñi muy dajeel daa am ñi muy dajeel ñoo xamante ni nii ñoo gën a miin fii fuuf donte moom ndaa naan la te bëri na ay kaw mais na changé waat façon bërinam changé waat façon bërinam voilà Bébé Gouy dellu si la moom noonu Aliou Ba ngay wax ak ñoom. waaw daa war a changer façon bëri façon bëri parce que fi mu toll nii waratoo jaay sa lamb waratoo dëggalaat sa bopp comme noonu da ngay déplacé wu. Ba suuf la woon na hélas. waaw parce que waa da ko bëgg a delluwaat fi mu ko de gis nga. lii moo ko war mais Bébé guy gi li yankaaw waroon def moo la war a def waaw. lu ci man de am mënul yomb ndax ñoom ñaar ci liñ jógee daa métti. mënul yomb mënul yomb. dañuy xeex dañuy bëree. waaw noonu moo tax ña ngi ca. bébé guy gi ak yankaw ma ngay def déplacement moom yankaw aha di bëri latéral ndeysaan cokaas na mooy yoon mooy yoon cokaas rek diree ko cokaas rek diree ko te loolu xool bu ñu jàppante automatiquement day jéem a koraat pour tëggaat foofu épicule mu dem fay juwaat parce que loolu mooy am ma nga noonu ndeysaan waaw mépp na ña ngay xeex ñoom ñaar waaw waaw waaw séntu ci lu nekk séntu ngay raag séntu ci kaw te séntu ci lu nekk munul bañ a métti gis nga day métti day nga bébé guy gi maa ngay dégg na korosé da fay delloowaat. da ko fay delloo rek da koy delloowaat rek. ay waaye mbërum lamba soxor. non noo noo non ah waaw làmb rek. làmb làmb soxor El Hadj. ndam dalee na jaral lu nekk. léegi nag fi mu toll léegi bëree moo fi des léegi. léegi fi mu toll nii bëree moo fi des léegi bëree. moo ci des. bëree moo fi des léegi. nañu xool fu wàññi ci li mu jëkk gëtëm. waaw parce que yaakaar naa jéem a jàpp jéem a bëree. mi-temps. dañoo mi-temps nii ndeysaan. dañoo dina arrangé bi bi guy ga. dina ko arrangé dina tax mu soufflé tuuti dina tax aussi encore une fois gis na daa ci arro bi. ma nga nonu ndaysan koko bebe guy ndiago la ma nga nonu ma nga waree géeje way écrit Mor Fadam safara la andal moom Mbaye Diop Eumeu sen Junior la andal ma nga nonu ndaysan la andal écrit Mor Fadam la jóge delluwaat na ci mom moom bébé guy gi waaye mbërum làmb dem aru taxul ñu daan ko mbërum làmb dem aru taxul ñu daan ko Eumeu Sène demoon na fi aado digganteem ak Gris Bordeaux waaye taxul mu daanu mbëri làmb yàgg nañoo dem aado ñëw daan bébé guy gi ma nga ca aado ba ndeysaan Yankaw ndaanaan la champion la jàmbaar la mbokkum yaayu Cheikh Maam Saliou mbërum Cheikh Maam Saliou baa ngi noonu Yankaw Junior ña nga ca ba léegi Yankaw yóbbu na bébé guy gi ci ardo ba ndeysaan ma nga ca ba léegi ñaari xale yaa ngi noonu mais là sama gis nag yaa kaw mel ni moo ëpp gabari ah. waaw dégg nga moo gën a moo moo ëpp maas moo tax nee naa li li bébé guy gi waroon a def moom la yankaaw def loolu moo koy arrangé sëf na poids mais dara boole na ko rapidité ak souplesse. mo kay mën may sa bu bébé guuy gu jógee mu japp ko te bébé guuy gi buy bëri ji day dem bëri ji ci peeku ngiambal te ki da koy japp kor ko dóor ko ibil ki la te bo loolu day yak lambam day yak lambam nga noonu ndeysaan elas école de lutte Ndiaga sar ani waaj ani way école de lutte ñi ngi waj di waj bis bu mag muy la kat wa wa waaw doole di waj Ndiaga doole bu baax nak di yalla di ñaan yalla suñu borom may ñu ndam ndax lepp luñ ci waron def rek def nañ ko kontak na yéeg na din dem na salle musculation def na juf dem na lépp kon nag yàlla moo ci des waaw. waaw ka muy nag daanaan la hélas ka muy bëreel champion la ci wàllu bëre ñëw naa fii fekk leen fi ñuy bëre taw 5 millions ba mu daan ko fa jël mu waaw d' accord nañu d' accord nañu mais dama la li ci bëre simple di ci bëre dóor njaga 16 combats la def 2 défaites la am wala loolu. la am 16 combats la njaga def. kenn du njaga doole. 16 combats laa la ku nekk ak bokkul ak ni la daanee. voilà kon nag lamb moom moo waxul dëgg mais bu woon galaa bi mook mook du saan duñ bëree ndax du saan booy xool 4 combats def xuma 5 combats def 5 combats waaw mi ngi noonu loolu loolu am na solo waaye diggante caatu yaraax ak gàmmu gëy tamit loolu tamit lamb la ju gars yi di xaar ci wàllu bagaar combat bi métti euh, gàmmu gëy lu waaj doyul moom gàmmu maa la mel ni combat lum ci waaj rek doyul parce que ñi muy dajeel la bu paree jëm ci njaaytin jóge ci njaaytin jëm ci caatu yoof te ñoom ñëpp dañ coriace xeex ñoom ñëpp dañ coriace xeex ndaanaan la der la mais daman la lamb loo ci mën loo ci yàgg te waajoo waaj bi nga xamante ni tax sa adversaire tey lu mu indi ngay lu ko raw mën ngaa mbetteel fii. mën ngaa mbetteel bu baax. ah suuf si de neexalul kenn suuf arène nationale si neexalul kenn mbër ñëw na fi entraîné bay bëgg a dee. ñew musiba am mu foré ko ña nga noonu yankaw junior bébé guy gi ba légui ma nga ci ardo ndax dina mëna a ma tét ndax bébé guy gi dina mëna a waat lu ci mën di am nañ xol fu di mujjee ki gëtam ñaari mbër yaangi nonu noonu fi mu ne géwal yi rek ngay dégg ndeysaan xaadim caw nee na ay ñaa lu mu koy def xaadim bu ñaa bu ndaw jàppee lu mu koy def moo ko commentaire ndeysaan Moustapha Wade Nena ngi lay bëggee nee na waa Omar Touré mbokkum yaayu Yankaw Junior Diop alaaji maa ngi lay bëgg ndeysaan na kër yi yëngatu yëngal leen kër yi ma nga noonu ndeysaan Waly Dione maa ngi lay bëggee Omar Diane maa ngi lay bëggee Jox maa ngi lay bëggee Ismaïla Ndiaye moom moo commenté Rambo et mu dante combat mënuñu koo benn mënuñu koo bañ làmb la Mayoro Thioune maa ngi lay bëggee nee na ma nga Brésil Sénégal neex na ay waay waay waay waay waay kooku mooy Mayoro Thioune ndeysaan maa ngi lay bëggee borom Brésil nuyul ma waa Brésil Mayoro Ismaïla Ndiaye nee na Rambo ak Moudou Anta Moudou Anta borom Thiès lu ci mën di am loolu lépp ay làmb la ndeysaan yokkal leen ma kër yi waxtaan bi neex ma kër yi ñëw waxtaan bi neex Moustapha Wade Moustapha yokkal leen ma kër yi na kër yi ñëw ndeysaan ñu waxtaanee ko làmb jam kanam Eric Mendy maa ngi lay bëgg Eric Mendy nee na ñàpp na du def dara ndeysaan kooku am na ko muy tontu te suuf Xaadim Caw lay tontu Xaadim Caw lay tontu nee na ñaa bu ndaw du def dara ndeysaan commentaire zarak yaa ngi noonu Mouhamed maa ngi lay bëggee Omar Bolom Korobaan maa ngi lay bëggee sama xaret bi mbokkum yaayu Saaliw bébé guy gi ñëwaat na Ahmed Diallo maa ngi lay bëggee Moussa mag maa ngi lay bëggee Saaliw Ñang maa ngi lay bëggee Pape Saaliw Kajega maa ngi lay bëggee ndeysaan Moustapha Wade yokkal leen ma kër ñu waxtaanee ko làmb jaa ngi noonu at bi baa ngay waaj a suuf mbokk yi Yankaw Junior écurie Doudou Bakar Sarr Bébé Gouy Gui écurie Mor Faram at bi ba na mbokk yi ña ngay bëri def ay déplacement ñoom ñaar wàcce nañ sa suuf ñoom ñaar ndaysaan ña ngay lewtu Bébé Gouy Gui seen combat bi yàgg na Yankaw Junior seen lamb ji mi nga bëgg a yàgg metti na gaaw leen bëre ndam li am fu mu dem fan lay dem géejewaay wala ñaari tali loolu fan la cay dem. nañ xool fu wàññi ne mu jekki gëtam ñaari mbër yaa ngi noonu bokk yi ña ngay léewtoo ñoom ñaar di xoolante ci biir ay bët ndeysaan arbitre bàyyi leen ñu bëre musal arbitre bàyyi leen ñu bëre cokkaas na moom yankaw waaye dalul cokkaas na moom bébé guy gi waaye dalul ña ngay def ay déplacement ñoom ñaar ku nekk teg na li nga xam ne moom mooy garde normal muy tàkku góos cokkaas na moom yankaw junior ña nga ca ba léegi roofoo nañ demoon na ba jël tànk ba mu të damantey baaraam jàppante na ñoom ñaar fan lay mujjee ñaari mbër yi mën a bëri lañ ma ngay dur moom yankaw avantage am la ma ngay dóor ma ngay dóor ay waay waay waay waay ma ngay dóor ñoom ñaar ña ngay bëri ñaari mbër yaa ngi bëri ndeysaan ñaari mbër yaa ngay bëri Yankaw Senior Bébé Gouy Gui mënul yomb lamb jooju mënul yomb ndeysaan ay champion lañu ña nga noonu ñoom ñaar jege nañ saak lool jàppante na ñoom ñaar Bébé Gouy Gui Yankaw laay laaxee la laa génnagul da ko mbot mu të génnagul ba léegi ña ca ñoom ñaar fan lay mujjee génn na Yankaw génn na Bébé Gouy génn na Yankaw Bébé Gouy Gui génn na Yankaw ña nga noonu ñoom ñaar ndeysaan day jël avertissement day jël avertissement premier avertissement pour Yankaw Junior temps ba lee mu jeex cinq minutes bariwul bëri leen waaye ay takaayam ay takaayam ma ngay wadd moom Yankaw Junior takaay yaa ngay wadd fan lay mujjee temps ba daa jeexam déet temps ba daa jeexam déet lan mooy xew bu temps ba jeexee Bébé Gouy Gui mooy gagné wala Ardo la demaat na Ardo dara jaa ko sonal Bébé Gouy Gui dara jaa ko sonal ndeysaan ma nga noonu moom Bébé Gouy Gui na Ardo Bébé Gouy Gui Ardo ndeysaan seen lamb ji bett na bébé guy gi ak yankaw siñoor ndeysaan ña nga noonu yokkal leen ma kër yi commentaire Moustapha Wade sama xarit bi maa ngi lay bëggee ba sow maa lay bëggee nee na bonne chance Anaconda Anaconda bëriwul lamam ji daa yàqu tey Boy Sey numéro 2 daa blessé ba sow Boy Sey daa blessé Souleymane Diop maa ngi lay bëggee Pape Saliou Gadia mag sa Pape Saliou Gadiaga maa ngi lay bëggee nee na soq ak ama neex loolu làmb la mënuñu koo bañ loolu ay làmb yu neex la Pape Saliou Gadiaga maa ngi lay bëggee Saliou Niang mbokk mi yaa Yankaw Junior ñu ngi lay bëggee bébé gu ma nga ca ardo ba ndeysaan lu ci mën di am làmb ji metti na gaay yokkal leen ma kër yi yokkal leen ma kër yi na kër yi yokku na kër yi waxtaanee ko mbokk yi na kër yi yokku ñu waxtaanee ko mbokk yi Fallou Seck Babacar Kébé maa ngi lay maa ngi leen di bëggee ndeysaan loolu am na solo ña nga ca ba léegi ñoom ñaar bébé guy gi ak Yankaw Junior bébé guy gi noonu ba léegi ma nga ca ardo ba ba léegi ma nga noonu ca ardo ba moom bébé guy gi ndeysaan seen combat baa ngi bëgg a yàgg ña noonu waaye bu temps bi jeexee Bébé Gouy Gui moo jël ndam li ndax Yankaw dafa am avertissement waaye ndax nañ xool Yankaw ndax dina bëri sem ndax am na avertissement kooku mooy Kani Sadam moo war a bëri Nguel Dione nekk grand combat bi ndeysaan yanka wa ngi noonu gonek Doudou Bakar Sarr gaa ngi noonu gonek Bawol gaa ngi noonu moom yankaw junior mbokkum yaayu Cheikh Maam Saliou moom yankaw junior mbokkum yaayu jeex jàmm moom yankaw junior mbokkum yaayu Boy Dakar moom Yankaw Junior mbokkum yaayu ci kër Caacoo moom Yankaw Junior gonek boy gonek Dakar gaa ngi noonu moom Yankaw Junior gonek Grand gaa ngi noonu moom Yankaw Junior ndeysaan ma nga noonu bi muy mujj mook Tiyaan Fay numéro 2 bu Tëngéej moo lu ci man de am mooy bébé guy ngi noonu ba léegi ma nga ca ba léegi ma nga ca araba moom bébé guy gi ndeysaan gaañoom bi metti na lool ndax dina mën a bëre waat wala déet nañu xool fan lay mujje yankaw ma nga noonu moom Seydina journaliste bu mag baa ngi noonu moom Seydina ndeysaan samay waay la ñu ña nga noonu arbitre bi woote waan na ña nonu noonu njaysaan bébé guy gi demaan lan la fay jeli dem na ba ñaari yoon ba ñetti yon ci ardo ba ndeysaan arbitre ba ngay waxat ak ñom bebe guuy gi yankaw señor ñanga nonu ñom ñaar arbitre baa ngay ak suus juge ya pare nañ monsieur l'arbitre wax naa ñaari mbër yi pare nañu bi àtte waan na mbokk yi soufflé waan na ña ngay lewtoo ñoom ñaar Yankaw Junior Bébé guy Gui cokkaas na moom Bébé Gouy Gui moo ngembo ngembulu ngembulu zone li ndeysaan moo leen wan dee joor moom Bébé Gouy Gui écrit moo dafa dam la jógee Yankaw Junior jël na tànk ba la nar roofoo na ñoom ñaar jàppante nañ galgal laay laa lallaa fan lay mujj dañoo war a bëri nanga noonu ñoom ñaar roofoo nañu Yankaw Senior Bébé Gouy Gui Bébé Gouy Gui Yankaw Senior ma ngay def kele contre kele dóor na ko mu bàyyi kele contre kele ña nga ca ba léegi ndengeñ na ko moom Yankaw Senior del na ba ba teg ko ca baat ba mbaa ca dënd ba looloy ndengeñ jàppante na ñoom ñaar Gouy gi am na ngembu xañ na xañ na yankaw benn ngemb la ña nga ca ba léegi bébé guy gi yankaw ma ngay dóor yankaw wa ngay dóor bébé guy gi xeex bi baaxul ceew bàyyil xeex bi da lay daan fan lay mujj laay laaxay la la laay waay waay xale yee mën a bëre yankaw ak bébé guy gi yankaw ndaanaan la champion la am na ngembu lan la nar bett na ko laay laaxay la laa rëpp nañ rëpp nañ ñoom ñaar ay waay ñaari xale yaa ngi bëri waay bëgg naa lii ci bëri bëgg naa lii ci bëri maa la ko wax mënul yomb mënul yomb dóor ya metti na waaye mënul yomb ndeysaan arbitre ate waan na moo xew laay laaxay la laay ña nga ca ba léegi arbitre baa ngay wax ak ñoom ba léegi dafay demaat ardo guy gi dafay demaat ardo fay demat ardo amma sen senior ma nga yeungal gaay ndaysan ma nga yeungal supporter ya waaw waaw amma nga yeungal supporter ya amma sen nga yeungal supporter ya ndaysan xala ya nga yeungu ca kaw wa géeja ya nga yeungu sa kaw bi mooy quatrième fois Bébé Gouy Gui ma nga ci àdduma ndeysaan làmb ji metti na waaye temps bi li des mu jeex bareetul ba léegi ñoo nga ca ñoom ñaar Bébé Gouy Gui Yankaw Senior waaye sànq bëri nañ xeex nañ ndeysaan sànq bëre nañ xeex nañ ñoom ñaar mu nga noonu ba léegi ca ardo ba moom bébé guy gi mbokk yi woy leen di abonné ci Zarak Vision site bu mag bi dafay am solo yokk leen abonnement yi ndeysaan ña nga noonu woy leen di abonné ci Zarak Vision sit bu mag bi le ralenti yi am na solo dee a ko jox laay van daari ndeysaan ña noonu bébé guy gi yankaw siñoor foofu foofu am na solo lose laa laa xay la laa bi dañoo bëri ñaari gune yi dañoo bëri dañoo bëri ñoom ñaar kale contre kale lu yankaw def bébé guy gi génne ndeysaan loolu am na solo lëz Irlam TV, amna solo ñanga nonu ba legi bébé guy gi gis nga lañu bëre fofu ñom ñaar ndaysan dañu ñom wona fu la wona fayda ndaysan ñom ñaar bébé guy gi ak yankaw ay der lañu mënul yombu lambu jooju mënul yombu yokkal leen ma sami bas bas sow maa ngi lay bëggee Dakar maa ngi lay bëggee Moustapha Wade maa ngi lay bëggee Abdou Gueye maa ngi leen di bëggee yokkal leen ma yokkal leen ma kër yi yokkal leen ma kër yi ruusi na ñëw na kër yi ruusi bari na ruzi bari ba léegi yaa ngi kaw ma nga ca biir géew ba bebe guy gi ma nga ca ardo ba grand combat bi mo doxon ci diggante Anaconda ak Boy Seye numéro 2 journée bi nek journée moom production muy Modou Baye Fall borom parcel nga xamni bi moy 5e journée ci lamb ndaysan mo teggon Talfa ak sooq bu ndaw rakki sooq ja moo tëggoon xeeru ngor ak mbaytin junior bari na ay lamb yum fi tëggoon moom Modou Baye Fall moomoo production ñëw na tëgg li nga xam ne tey moom mooy journée bu mag bi tey di ngel jon na kaane saram guy gi yankaw siñoor internet doon fi bëre ak euh, armée jeey waaye mbay xadaa doon fi bëre ak bébé ama moom mbay xadaa moo mujjee am ndam li ci digganteem ak ba euh, digganteem ak bébé ama bu kër mbay fall papa bu ndaw doon fi bëre ak euh, àll numéro 2 bari woon na espoir yu fi doon bëre tey ndeysaan saa bawal doon fi bëre ak saa euh, caatu kajoor bawal kajoor la ndeysaan waaye mbay di foncé numéro 2 ba école de lutte Fadam doon fi bëre ak Pape Mbër ndeysaan Ramdan Senior bu bawal doon fi bëre ak Lac Rose numéro 2 abada du fi bëre Talla Gaindé numéro 2 bu parcel internet du internet bu bool doon fi bëre armée jey mbay xada doon fi bëre bébé Ama bu kër mbay Fall bébé guuy gi ak Yankaw Junior ñoo wara a ni ndaysan ba légui ndam demul ndam dekul Kaani Sada moom moy na grand combat bi ak Ngel Jonn ko ndala won ak Boy Sey numéro 2 waye Boy Sey blessé dañ ko koy nangul mbokk yi xaar leen ñu ci kanam mbokk yi xaar leen ñu ci kanam spécial Franc Bombardier yu Youssou Ndour Baye Balla Talfa ku ne xam nañu làmb jooju taxaw na barki Demba njaay jàmbaar production moo ko taxawal Mansour Ba waaye itam danañ waxtaanee le 4 février. Zarko ak Niang bu ndaw loolu fii lay am ci 4 février bi ndeysaan mënul yomb ar baa ngay waxaat ak ñoom bébé guy gi jël si waat na at bi waxaatan ak ñoom ndeysaan at bu sufle waan na bébé guy gi yankaw siñoor ña ngay lewtoo ba léegi ñoom ñaar mbay guy gi bébé guy gi maa ngi koy jaawaleeg mbay guy gi bee ko bu bawol yankaw dóor na daka ngàdd yankaw ma ngay dóor mëri arrière ay waay non non non non d'accordu ma ci monsieur leer bi d'accordu ma ci jox na avertissement bébé guy gi d'accordu ma ci arbitre bàyyi leen ñu bëre bëri leen temps bi léegi mu jeex temps bi léegi mu jeex bëri leen ña ngay xeex ñoom ñaar ba léegi ña ngi ca ñoom ñaar ña ngay raak ña ngay xeex ñoom ñaar Bébé Gouy Gui ak Yankaw Junior Yankaw ak Bébé Gouy jàppante nañ yooru na jëli ko ndeysaan ña nga ca ba léegi jàppante nañ baadu ko génn saaku yi baadu ko génn waat saaku yi Bébé Gouye Gui Yankaw fan lay mujjee temps bi léegi mu jeex temps ba jeex na temps ba jeex na wala ardo la demaat Bébé Gouye demaat na ardo Bébé Gouye Gui naani waat na soow mooy cinquième fois mu koy naani naani waat na soow mu xonq ma seen làmb ji metti na seen làmb ji metti na waaye supporter Bébé Gouy Gui d'accorduñ ci li ñu jox avertissement Bébé Gouy Gui warul woon dañ ñu woon arbitre warul nu ko ko jox avertissement loolu d'accorduñ ci ndax mi ngi doon bëree Bébé Gouy Gui ma nga ci ardo ba ba léegi Moustapha Wade maa ngi lay bëggee nee na bi xamul dara ah xaw ma xam naan dara xamul dara de waaye lim def nii du yoon de avertissement bii mu jox Bébé Gouy Gui ko ko jox ndax mi ngi doon bëree bëri ak arrière ñoo ànd waaye arrière ba génn saako yi daal loolu naa ci. waaye ma nga ca digg géew ba léegi arrière génn saako ya ku loolu jaarul woon ndeysaan da ngay bëre ñoom ñaar ba léegi loolu la ma les woon foofu ndeysaan relanti yi am na solo relanti yi am na solo ba mo mu ngi ca mom moom bébé guy gi ma nga ci arda ba balegi léegi ma nga ca aar ba ba léegi moom bébé gi bi Lamba met, wai wai Lamba làmba wai. wai wai murum Lamba làmba wai, murum Lamba làmba soxor moo tax mënumaa da ngay adversaire continuer di fa dóor way way lolou way way way lolou ragal nako man lolou ragal nako ba legui ma nga ci mom bebe guy gi ma nga ci ardo ba legui way way tay ardo amna am way ardo seen cotontice dina jeex seen tafiya dina jeex bi mooy cinquième fois wala quatrième fois Bébé Gouy Gui ma ngi fay dem tafiya dina jeex ak coton ya ndeysaan ma nga ca ba léegi bébé guy nga ca ba léegi seen làmb jaa ngi bëgg a yàgg seen làmb jaa ngi bëgg a yàgg manga ca ba léegi moom bébé guy gi mu ngay bëgg a ca ardo ba ba léegi ñoo nga ca ba léegi ma nga ca ardo ba moom bébé guy gi ñëwaat na bébé guy gi dellusiwaat na bébé guy gi dellusiwaat na bébé gi dellusiwaat na at bu baa ngay waxaat ñoom at ba suuf la waat na mbokk yi arbitre sufla waan na Bébé Gouy Gui Yankaw Junior Yankaw moo leen wan kanam Bébé Gouy Gui moo leen wan ginnaaw cokkaas na moom Yankaw cokkaasaat na ba léegi ña nga ca Yankaw ngay dolli fa mu ko dóoroon mbaa du ko gaañ ba léegi ña nga ca ñoom ñaar Bébé Gouy Gui Yankaw ma ngi ko fay dóoraat jël na tànk ba ña ngay ba léegi ay waay làmb ji metti na waay ay waay bii la làmb métti na waay bii la làmb métti na musuma koo gis yankaw junior ak bébé guy gi ba léegi ña nga ca ba léegi ña nga ca fan lay mujj da ko paraake mu bañ yankaw da koo ndengeñ runkum nañ daje ñoom ñaar ñoom ñaar def nañu runkum daje at bi bàyyi leen ñu bëre bu laate bàyyi leen ñu bëre dafa neex ba léegi ña nga ca ba léegi ña nga ca ba léegi ña nga ca ay waay mbër yëfu der la bër ku amul fit doo bëri ku amul fit doo bëri ba léegi ma ngay dóor moom Yankaw Senior waaye dóor ya daa neex ca moom dóor ya daa neex ca moom ba léegi ña ca ndengeñ na ko demoon na ko ba koy caxabal mu të ña ngay bëri ñaari xale yaa ngi noonu bébé guy gi yankaw senior bébé guy gi yankaw senior fan lay mujj ma ngi ko fay dóor ba léegi ma ko fay dóor ba léegi ay waay waay metti na waay bébé guy gi ndaanaan la ndeysaan ay waay waay gaañu na waay gaañu na laa ilaaha illallah fan lay mujj nañ déglu arbitre ba nañ déglu arbitre nañ déglu arbitre ndax bële signalé woon na arbitre bële signalé woon na nañ déglu arbit bi nañ déglu arbitre bi dañ déglu arbitre bi ba léegi mën mënaguñoo confirmer victoire Bébé Gouy gi ndax juge bi dafa dafa dafa dafa njëkk a àtte nañ xool fan la arbitre bi mujjee far ba arbitre bi lu ndam la wala déet dafa mel ni Bébé Gouy Gui moom moo daan Yankaw Junior daan na ko jël bu rëy ah. daan na ko jël bu rëy ndaanaan la yanka wa ngi noonu tëdd xam na ni daa daanu ay waay waay waay mbër maa ngi nii bébé guy gi waxoon na ma ko ndeysaan nee na maa mën maa ëpp doole maa gën a feete xale lu mu métti métti ndam liggéey waaye la ñibbi loolu waxoon na ma ko waaye dëggal na ko xale bi ndaanaan la xale bi champion la xale bi jàmbaar la supporter mi yaa ngi noonu ndeysaan nañu wa géej waaye ngi noonu waa géej waaye ngi noonu waa géej waaye ngi noonu ña yëngal ca kaw ndaysan ay waay waay waay waay waay seen mbër nanan la seen mbër champion la seen mbër jambar la demna arro 5 fois ñëwaat daan jël bu reuy li moy lamb lamb ngi nii yankaw da ngay dan baa dan daan la muñal jugatal yokat entraînement yi day bax ndan nan nga yankaw la supporter dañuy toyal de dañoo bëgg yankaw yi noonu ba léegi ma nga ci géew ba ay waay defe neexul waay li ma jaaxal mooy Bébé daan daan ba pare ma nga ci àdduma ba léegi loolu loolu jaaxal na ma waaye mbër la mbër la moom Bébé Gouy gi Moustapha Wade Safkan làmb émission bu baax bi yaa ngi koy xaar ci kanam xaar ko ci kanam Moustapha Wade Safkan Lamb dina ñëw ca kanam émission bu baax bi ndeysaan Moustapha Wade maa ngi lay bëggee bébé guy gi non ba léegi nag arbitre bi joxeegul ndama arbitre baa ngi leen di waat ba léegi arbitre baa ngi leen di woowaat ba léegi ba léegi arbitre baa ngi leen di woowaat Bébé Gouy Gui la ñuy xaar mu ñëw mais mënuñu confirmer victoire Bébé Gouy Gui Yankaw moom daanoon na ba ba ngalañ moom waaye mënuñu mënuñu confirmer victoire Bébé Gouy Gui ndax bi Bébé Gouy Gui di daan dafa tombeek juge bi du jug di waaj a moo tax mënuñu confirmer victoire bébé guy gi dañuy daal di déglu arbitre rek mu wax ñu kan moom moom ndam li wala masinu la am doon dañuy déglu monsieur l'arbitre mu wax ñu tey fan la làmb ji di mujjee Moussa Larbit mo wax ñu tay fa lamb ji di mujjé victoire la wala match nul waye ba légui Bébé guuy gi ma nga ci ardo ba ba légui ma nga ci ardo ba même Bébé guuy gi ba léegi ña ca ñoom ñaar nañ xool tey fu wan ci mujjee kay gëtëm loolu mo nekkon tay combat spécial bi doon ci digënté Bébé gugu bé ko école mor Mar Fadam Yankaw Junior bé ko Ly Dour Pekar sar grand combat bi moy dox ci digënté Ngel Jonn ak Kaani Sadam kani Sadam Angel Jonn loolu nekk grand combat bi bisub tay 28 janvier 2024 ndaysan waye bu len faté Sénégal suba lay football sunu digënté Côte d'Ivoire waay waay Côte d'Ivoire waay waay Côte d'Ivoire da ngay ñak Côte d'Ivoire amo maqama ba do ñak Côte d'Ivoire gay ndey ya, dañu soxla te gaynde du rëbb di soy ma la ko wax di leen ñaanal ndeysaan ñu jël ndam li andil ñu ko ci réew mi defoon nañ ko 2022 andi woon nañ ko waay waay nañ ñëwaat andi waat ko waay am solo waaye ba léegi ña nyom nyar, dekar ñaar di xaar seen ndam seen defet wala match nul ndax làmb noonu la ñettay dugg waaye benn génn ñett yi mooy défaite victoire ak match waaye benn ca manaam a nañ xool nag fan lay mujjee ñoom ñaar ba léegi Bébé Gouy Gui ma nga ca artu ba léegi ndeysaan ahmadou Ba waaw 3-0 lañ bëgg 3-0 ahmadou Ba suba suba suba mo sabi 3-0 lañ ci bëgg ñooñu ko tamal nañ dem jëli ndam li ñëwaat bébé guy gi jël ci waat na waay waay bébé guy gi son na tay ña nga taf ba kenn ba arbitre baa ngay waxat ak ñom fan la ndam li di mujjé nañ xool fan la ndam li di mujjee Badou nañ xool fan la ndam li di mujjee ndax Yankaw moom daaru na moom mais nañ xool fan la ndam li di mujje xaw ma nag fan lay mujje ndax masilu nuur lay doon wala kan mooy jël ndam li nañ xool fi ndam li di mujjee nañ xool fi ndam li di mujjee Bébé Gouy Gui ak Ngaw Sour ña nga ca ba léegi ña nga ca biir géew ba ba léegi si lamb ji metti na yàgg na ndeysaan alaaji Caam Babel maa ngi lay ziar borom di foncé maa ngi lay bëgg di nuy waa di foncé waa ñu ngi nii alaaji Seex Ñaŋ waa allo allo maa ngi ziar waa Zik Vision ci loo ne maa ngi sant bu wér a wér lamb bébé guy bi metti na de macha allah metti na da ko war a tas di def ko tey tey amateur li ngeen bëgg waaw non lamb moom da ngeen bëgg ci boole ñaar ñu tolloo doole quoi mais jël goo xam ne 100 kilos ak 60 kilos loolu du neexal làmb li mooy neexal làmb. mais gis nañ yaa ngi kaw daanu waaye dañoo xool arbitre bi lan lay soufflé. mais daa fekk arbitre soufflé ba pare nag. fekk arbitre soufflé waaw. arbitre juge bi gis naa mu daw tas làmb ji avant bi di am waaw xam naa ma da koy soufflé waat quoi. wax dëgg yàlla moo sañoon kenn daal instant bi waaw boo sañoon kenn daal day machine nil quoi day machine nil parce que ñoom ñaar dañoo sonn ci làmb bi borom pasir ñu ngi lay bëggee ndaysan dañu dem prolongation ñom ñaar Bébé Gouy Gui bi muy daan Yankaw fekk arbitre soufflé ba pare taxol mënu mënuñu confirmer victoire Bébé Gouy Gui arbitre soufflé wa na mbokk yi fon lay mujjé ña nga ca prolongation ba légui ndaysan Bébé Gouy yanka Junior ña ngay déglu wonté di xaar ñom ñaar géwal ya xanaa seen mikoro ba daa fay déggatuma leen xale yaa nga yëngal ca kaw ndeysaan ña ngay sukk ñoom ñaar di bëri ña ngay bëri arrière na moom bébé guy gi jàppante ñoom ñaar jàppante nañ bañ na jàppante ba moom yankaw bañ na jàppante ba yankaw bañ na jàppante ba ña nga ca ba léegi jàppante nañ ñoom ñaar mën ngay dóor daa bëgg a taaxali moom dóor ko ndeysaan fam ko dóorun ay eh, waay waay yankaa wa soxor waay waay waay yankaa wa néeg waay dina tànk ba mënu ca dara fan lay mujj Bébé Gouy Gui daa mën daa bari damay ragal ñu bëtt ko xaatar bi ko lu ne mën na caa xew ña nga noonu ba léegi waay waay xale bi ndaanaan la waay Bébé Gouy Gui ak Yankaw ay ndaanaan lañu ba léegi ca ba léegi palaake mu të laa ilaaha illallah plaqué nañ mu të Bébé Gouy Gui boo génnee am avertissement oh laa ilaaha illallah fan lay mujj ba léegi waay waay waay waay waay xale yee mën a bëre ay waay waay waay waay ña nga ca génn na Bébé Gouy Gui ngi noonu yankaw si yor a noonu ñaari mbër lañu ñaari der lañu bëre ngeen waay waay ku ci am ndam baax na ku ci amul ndam itam ku ci amul ndam baax na ndax bëre ngeen bëre ngeen xeex ngeen yéen ñaar bëri ngeen xeex ngeen leen ñaar mënu see ñàkk mënul ñàkk Bébé Gouy Gui delluwaat ca ardo ba allo Thiam allo ma nga noonu ba léegi ndeysaan mbokk yi koñ la ñu ca kanam ca Zarak Vision spécial Franc Bombardier Niang bu Ndaw ak Zarko ak ki nga xam ne tey moom moo di Youssou Ndour Baye Balla Talfa nar laa ma doon taxaw na yokkal leen ma kër yi na kër yokk na kër yu yokk yokkal leen ma kër yi muur muur borom muur bu borom daaru ñu ngi lay bëggee muur sa mbar bi mu fi mujjee yàggul mooy Sa Thiès bu Ngangouné Sa Thiès borom caaroy borom bawol bi fi mujjee yàggul mbuur sa mbër mi ndaanaan la champion la ba léegi ñaari mbër yaa ngi ca ndam demul ndam dikkul seen làmb jaa ngi bëgg yàgg maa la ko wax bébé guy gée nga ca ardo ba ba léegi seen làmb ji metti na ndam demul ndam dikul radi Mar mang lay bëgg sama xarit bi Omar borom koloban mang lay bëgg sama wat Omar manglay begi lay bëgg yankaw ma nga noonu bébé gu gee ngay dellu wat na nga taf ba ken ba bébé gu gee ngi nonu way way lamb ji metti na way wa way sen lambu ji metti na way wohatan nyom, ngay waxaat ak ñom arbi baa ngay ak ñom ca ba legi bilay liggey rek am solo entraînement rek am solo arbi suflu suuf na entraînement rek am solo ndaysan am koofur bu bax mëna tenir lu bari boko ko deful wayadi lambo entraînement la du misik ani misik bu fum nek ne bi gisumako tay fi fii entraînement bu bax la fi gis ak mëna a ba légui ñang ca ma ngay ya yankaw ma ngay mep ciokat na dalul yankaw arbitre baa ngay waxaata ak ñoom bàyyi leen ñu bëree yankaw ma ngay diree ku di diri tànk ba ndeysaan ma ngay mépp cokkaas na moom yankaw junior fayu na moom bébé guy gi waaye dalul dóor ya dalul seen làmb ji yàgg na mar naa seen làmb ji yàgg na ba léegi ndam demul ndam dikul ña ngay lewtoo ñoom ñaar bébé guy gi bu École de Lille Mor Fadam at bi suuf waa na mbokk yi temps ba daa jeex walla déet temps ba daa jeex walla déet temps ba daa jeex wala déet def nañ masu nil ñoom ñaar masu nil lañ ñoom ñaar waaye d'accorduñ Bébé Gouy gi d'accordul moom yëg na ni ndam li moo ko moom Yankaw la woon mbokk yi bégul moom Bébé Gouy Gui Bébé Gouy Gui ngi noonu ndeysaan làmb ji match nul la ndam demul ndam dikkul ci combat bi Bébé Gouy Gui noonu ànd ak waa écurie Fadam waaye xale yaa ngi koy